nuyoo di sant di di ñaan sëñ Muntaxa ci lii nga xam ne préfet moom la def maa ngi koy ñaan sëñ sëñ Muntaxa waaw xaar bu màggal di ñaan maire ci la préfet def préfet deux mois ngi nii muy ar koy mooy mu dinu woo dinu woo ba ni dikk dernier moment mu ni jàpp naa ko kii le 24 assemblée générale la premier daanañu def élection na waxtaan bi jubboo bu nu waxtaanee ba jubboo léegi na dem ma dem def sama fere yëpp ba mu mat ba léegi nii nii ma dikk nii di wax si ci ci télé bi mu ni fomm naa ko ma ne ko man woo àdduna bépp dikk na pour élection yi ba boo ko doon def di ko fomm da nga noo waroon woo bu yàgg nga doog koy fom waaye waroo toog ba dernier moment ah ba ñu ne suba la nga fomm réunion yi nee na ce jëkk bu jëkk ba lu mu wax daa wax ni biir de date de licence bi da cee war a am ma ne ko date de licence du am ci élection yi chauffeur mu topp ko topp ko bu ñu ko ne munta ne tey jii mu ni permis yi 2018 bi ngeen bëgg a wate ak ak 2019 bi permis yu bees yi nekku ci ma ni ko waxal nunu ni 2018 wax naa la fii ne la 2018 bi permis yu bees yi nekku ca permi mu màgget bi moo ci ne. Hmm. mu ne d' accord naa ñoom ñëpp ñu d' accord mu ni koo xam ne saw tur di nekk na ci ci bi ah sa carte mu nekk ci da nga wote nu d' accord ci loolu tey kubb na fee ta dem mu dikkaat tey ànd ak gone yi yàq élection bi. gone mooy ñan. du ma tudd seen tur ndax ah, du sama non du ma tudd seen tur sama moroomum doom du ma ah, tudd ah, turam il paraît que élection yi euh, bien avant lii am na parti opposition bi waxaat nañ ne du am euh, est-ce que du kon ñoom euh, jàppoo ne lañ nekkan mooy dëgg ba tax préfet jàpp jàppale leen comme ni ko waxee ma ne ba nekkan dëgg ba fekkee ne dëgg la ah du ko jàpp ba dañuy moo mu bàyyi ko noonu lu nu gëm lu nu gëm ñun lu nu gëm wax na ba xam naa ni gone yi la àndal fu ma kupp foo xam ne wax na ko ma dindi. aussi ay candidat lañ. fii na doonuñu candidat. Hmm. fa date boobu ma jàllee yàgg na. waaw man dong maay bu suba bu ma doo dem. bulletin balaa la ñu war a wote. suba nag élection yi nee na élection yu daam man lii di nag préfet dootuma organiser élection. léegi na du am euh, yow lan moo ci doon gis. moom laa la wax nee naa préfet dootuma organiser élection ndax daa jalgati loi. loi bi nga xam ne moom la jalgati waru woon a jëkk te gisul leetaru maire. maire jox ko na ko ñii dañoo bëgg a def élection loolu foofu la jëkk a jalgatee loi yëgalu ko maire kenn yëgu ko moom moo jël di sob boppam jox naa ko xaalis nag. mais dégg nañu ci euh, say opposant ñu ne dafa am benn audit boo xam ne nii moo nekk en cours moo tax nga bëgg a profité élection yi lan nga ciy tontu. man loolu ak seegul ci man ma ko. pourtant say opposant wax nañu waaw loolu mën nañu ubbaale xool nga booy xeex nit ki loolu neex wax loolu ak seegul ci man ba ak see ci man la may tontu xam naa ko. ñoom nee nañu fichier bi li nga ak li xam ne moom moo ne ci fichier bi c'est moom nga waxoon loolu moom loolu moom mbirum secrétaire la loolu damaa jël damaa jël secrétaire di ko fay damaa jël secrétaire di ko fay loolu bu ñu amee lu ñuy laaj nañu ko dem ca secrétaire ba laaj ko man damaa jël secrétaire di ko fay man suba laay fal sa bureau suba laay fal sama bureau ah waaw suba suba laay fal sama bureau